Daba nuyu naa. champion maa ngi lay. ci waaye sant yàlla. tey naka nga ñëwee. waaw tey ñëw fas ñaan suñu borom bu may ma ndam. incha ma ànd ak samay mbokk ak samay supporters dellu. préparé yeneen combat incha allah. dama la gis mais dafa mel xaw a diis tey. kan man man nii laa mës yokkoo poids. non non. mais Ahmed Deme ma gis bari na doole trop macha allah. loolu mooy tax mu neex. Hmm. waaw bu bëriwul doole day yomb quoi. Ahmed Deme ma gis dafa mel dafa décidé de xool. waaw waaw décidé xool Ahmed. Deme jarul ma xool. lu tax dinañ gisee. di waaw. yaa am Diop Anil Ndiaye. waaw bu soobee yàlla. am na nuyu naa. waaw fay naa la. ci loolu. sant yàlla bu baax tey naka nga ñëw. waaw alhamdulilah. ñëw naa di ñaan yàlla rek mu mottalil ma ko. daam si kaw gabaar si. gis na nga ba nga duggoon géejewaay. génnaat fa duggaat géejewaay lan moo waral loolu. waaw xam naa tax ma dugg ma duggoon fa duggaat ko. tey bés lu mu laaj. daa am lu may leeral rek. tey incha si kanam. si dina leer incha allah côté yooyu de. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, Thank you.

mbokk yi grand combat ngi noonu dox ci diggante Gabbar Singh ak Ahmed Deme mbokk yi Gabbar noonu il est 19h55 Ahmed Gabaa Singh moo ñëwoon ginnaaw waa mais lamb yi lu tax tàkkul xanaa du ngeen ji wax lamb estade yi tàkkul ah du ngeen wax ah kon boog gaaw leen Ameth Deme Gabaa Singh Gabaa moo ñëwoon ginnaaw teg pied gauche Ameth Deme teg pied gauche xeex bi dina xaw a compliqué tuuti eh Gabaa dagg na lewaatoo bi ànd waat ko ci diggi géew bi lamb ji woo ñu ko cons na courant amu fi courant amu fi woo ñoo cons lamb ji Ahmed Deme Gaba Singh grand combat baa ngi noonu ñoo ngi demee wet waaye mbokk yi saak yi fekkiwul kenn gabaar wàcc na daa bëgg a xeex wala lu mu bëgg a def Ahmed Deme Gaba Singh nee na ma dama duggoon géej waay génnaat fa duggaat fa li tax ma duggaat fa xam naa ko. Gabaar nee na su ma ñëwee li ma war a def xam naa ko dinaa ko def. Gabaar combat am du yomb du Gabbar wàcc na daa bëgg xeex ak moom waaye na moytu Amet Leen mi ma gis daa mel ni pare na de waaw Gabbar dagaat na lewaatoo bi xool na xool xam ne baaxul mu dagaat lewaatoo bi waaye Amet Dem a tekki rek di ko dem. Gabaa si nga met dem Gabaa wàcc na Gabaa daa mel ni ku bëgg a dem waaye day yendu leerul mu bàyyiwaat. combat Ahmed Deme Gabar Singh Gabar daa bëgg a dem waaye yoon bee leeragul ci moom Ahmed Deme Keba Singh Keba mu neex mu dëgg waaye li ma ci xaw a jaaxal mooy lamp stade bi tàkkagul est-ce que bu aase Bamba Thiam ndax dafa bëgg ñoom ñaar Bamba Thiam est-ce que lamb bu yàgg bi waaw enragé na leen parce que stade bi lamp yi tàkkul lamp yi fi mu ne nii tàkkul boo xoolee moom laa doon laaj léegi naan lamp yi lan moo tax tàkkul courant sax ci boppam amu fi kon moo tax presse bi war nañ leen a jox cër ndax boo xoolee ñëpp a taal minute kon loolu lu am solo la Ousseyn waaye nag gabasin fi na ne nii dafa mel dañ ñu ko toogal see tàng ndax ci la jëm mu ngi wàcc rek gis nga mu ngay dox mu ngay dox daa a dóor wala lan la bëgg a def ku dafa bëgg a dem te leeragul ko. Ahmed Deme Sane na góor. Ahmed Deme Sane loolay taxawal. loolay dox bi ngay dox di jëm ci man bëgguma ngay ñëw taxawal. jootu naa na combat bu yàgg lañ fi nar a. waaw loolu fi nar a def nag ndax gabasin ku ne xam na ne ay combat am du gaaw. Hmm. te fi mu ne nii nag boo xoolee lamp yi amu fi kon gabar dañ lay ñaan nga daal di gaaw. bu gaawal de waaw bëri ko ci ci fulla fayda ak ci jom. Ahmed Deme a kan la a Ahmed Deme ñoom na. jàppante nañu. jàppante nañu baax na Amet Dem jàpp na de Amet Dem jàpp na Amet Gabaara ngay dóor Gabaara ngay dóor Gabaar dóor na kaaw na oh Amet Dem dóor na Gabaar sing mu daanu Amet Dem lii nga andi woon doomu daal. ma wax la. sant yàlla. bi ma fiy jógee li ma waxoon. alhamdulilah rabi alamin. mais da alamin. da nga alamin. bi ma fiy jógee. lii laa waxoon bi ma fii mujjee. laa waxoon sant yàlla alhamdulilahi rabbi alamin nga waxoon. alhamdulilahi rabbi alamin mhm. bi ma fii jóge dama julli mhm. sant yàlla mais dañoo gis ngeen kenn amul doole yàlla rek moo am doole dëgg la ma ku am yàllaa la may ku ñàkk yàlla la xañ kon nag sant naa yàlla baax di sant waaw na bar na bar ci bëri bi da ngeen na ñu jeg jeg gis ko mu an yeer di daan saa dama kaa dóor mhm. liggéey rek moo am solo. bii passé dama liggéey. ana ñu doon wax Ahmed amul doole ana ñu doon wax Ahmed liggéeyul. fi yàlla rek moo fi dafa am loo xamante ne mënuñu ko bañ a laaj comme yow yaa bëre grand combat bi coupure bi nga am na nañ arbitre di leen teg pression sax pour ngeen bëre c'est la troisième fois muy am ci stade bi lu mel nii lan nga ciy wax bay ba ba combat bi tey mënoon ngeen koo ñàkk par avertissement lan nga wax ci lu mel noonu parce que bi ñu duggee la arbitre lampa yi tàkkul lii c'est pas normal ñun ñoo moom stade bi nan respecté mbëri yaa may dégg promoteur bi day fay xaalis tal kon baafuli nan kay taal seen en musique war ta dugg see stade bi mais nag maa ngi sant ñëpp di sant waa Thiaré supporter sama waa Igiri aw ma seen fay. ñi des xam nañ seen bopp nee naa leen dana wàpp rek saa waay dana wàpp rek liggéey rek moo solo maa